ne amul confiance si wàllu wu mel parce que dafa daal di jàpp ni euh, ki nga xamne que modi le président Macky Sall chamboulement bi nga xam ne amal nako au niveau de la Sénat du len luddul daal di li nga xamne que euh, modi peut-être euh, fat chance yi nga xamne ne Ousmane Sonko waroon na ko daal di war a am ngir mu daal di ci présidentiel présidentielle atoup 2024 alors ñu bari nak japp ne ni bobu de chamboulement politique lek moko ko daal di lal donte sax jamono ji li nga xamne que modi ñom ñi nga xam ni itam ñoo daal di féete si wàllu pouvoir bi ba tey ñi ngi déglu seen ay explication jëm si wàllu wunu mel ñoom dañ daal di jàpp ni que ni ñoom euh, équipe bu Doudou Ndour et consort seen ko mandat moo daal di jeex boral euh, ñu daal di jël benn ko euh, décision ñu daal di li nga xam nekk moo di leen li nga xam nekk moo di toxal fa nga xam ni itam mooy zaanu ko Sénat mu nekk commission bi nga xam ni itam mooy saytu wàllu élection yi te suñuy xool nag dafay daal di tëdd li nga xam nekk moo di ñaaxaanaay ndax moom ki nga xam que moo di Sénat moom fa seeni daal di nekk diggante li nga xam nekk moo di électeur acteurs yi candidats yi ba si li nga xam ne que moo di euh, euh, administration bi parce que quoi qu'on puisse sur arbitre la jëm si li nga xam ne que moo di élection yi lu sénégalais yi mënut a daal di comprendre mooy le moo tax boobu ba tey ba mu daal di jëli li nga xam ne que moo di décision euh, cette décision peine à être appliquée exactement donc ay dafay en gros semédo loolu la daal di yëkki mi ngi daal di joxaat aussi suba sénégalais à partir de 10 heures fa nga xam ni itam mooy zaanuko Sénat am yaakaar ni bi ba dina daal di fekk li nga xam ne que moo di directeur bi ginnaaw ba mu daal di demee li nga xam nekk euh, moo di euh, ñeenti yoon fa nga xam ni itam mooy zaanu ko DG am fa li nga xam nekk moo di résultat euh, jàpp ni bi bii baax nag résultat dina daal di amani fa nga xam ni itam mooy zaanu ko Sénat Abdoulaye Sylla moo nekk nit bees bi na xam ni itam tabb nañ ko fa mu daal di fay nekk nii. alors mbokki spectateurs yi euh, de l'autre côté aussi euh, keneen waxaat na di ki nga xam nekk moo di Abass Fall Abass Fall nag kenn dootu ko présenté euh, fa nga xam ko parti Pastef Abass nak kàddu xam ko mu daal di ni tey nekk ñu fi way suba inshallah allah fi daal di nekk ndaxte tay incha inshallah dinañ daal di ñëw am ni li nga xam nekk mooy seenu ko toogin fa nga xam ne it mooy seenu ko euh, Sénat obligé li nga xam nekk moo di à ce que mu daal di li nga xam nekk moo di ses fiches à Ousmane Sonko loolu la ki nga xam nekk modi di Abbas Sall daal di wax mom itam tay mu ñu gungé ci ki nga xam nekk mooy Ayib Daffé fa nga xam ne it mooy seenu ko Sénat alors ñu daal di déglu sans plus tarder ki nga xam nekk moo di Abbas Sall fa nga xam ne it mooy seenu ko Pastef euh, à ses côtés euh

Et nous sommes venus dans ce cadre-là. Et également, il faut euh, dénoncer ce décret-là qui a été pris parce que c'est un décret antidémocratique, c'est un décret illégal, c'est un décret qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas la loi portant création et organisation de la Sénat, qui ne respecte pas le code électoral. Parce qu'on a vu des membres euh, qui ont été nommés, mais qui ne sont ni neutres, ni impartiaux, qui ne sont pas indépendants et qui ont été à un moment euh, de leur vie des soutiens à l'APR ou à Beno Bokéakar. Donc le critère de neutralité et et d'indépendance des membres de la Sénat a été violé. On a vu également d'autres membres qui ont été nommés dans des conditions qui posent problème, puisqu'on euh, ne peut pas nommer quelqu'un qui est membre du Conseil constitutionnel, il faudrait qu'il démissionne. Donc voilà, en tout cas, un ensemble d'irrégularités, un ensemble d'illégalités qu'il faudrait quand même euh, euh, dénoncer. Et tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, c'est d'ailleurs pourquoi on est venu cet après-midi, pourquoi euh, on n'est pas venu ce matin. On recevait à l'Assemblée nationale en commission des... effectivement c'est effectivement, nous, le président Ayip, euh, pour euh, dans la suite de cette fameuse histoire de fiches de parrainage nous, dans la procédure Gungeko au niveau de la Sénat pour. Euh, que la Sénat, tel que le code électoral le lui permet, me substitue à la DGE pour gérer les fiches de parrainage malheureusement bi fait que nous le président de la Sénat demain lui en tant que mandataire nous allons pour récupérer les fiches et espérons que cette fois-ci euh, la Sénat va continuer à appliquer la loi donc le monde, nous suñu que malheureusement nous n'avons pas a dans un pays de droit où la justice joue son rôle l'exécutif joue son rôle le législatif joue son rôle mais on a l'impression ce n'est même plus une impression c'est une réalité que Bénédicte nit Mouy Makissal, nekk exécuté, Macky justif justice mooy Légiféré, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal un juge rendre une décision est à APR parce que man sax suis may état d'accord, ma gars état Aper, fi APR un président de parti au pouvoir un président de la République de C'est un parti euh, c'est un parti état qui est là C'est la première fois un juge a une décision ñu ne duñ ko appliquer def du délatoire délatoire ce sont des supposés hommes de droit Le président ay wax le ministre de l'Intérieur, il a été à l'Assemblée nationale mais en fait ce qu'on xoolee di nga di mais da nga am du dépit pour lui da en fait il a perdu même son âme parce que un homme de droit un juriste lui avocat ancien défenseur des droits de l'homme il a posé c'est un principe élémentaire en droit muy def délatoire mom mo la gëna a en tant qu'avocat que cette décision là elle est exécutoire dañ ça n'a rien à voir ak ay ay ay cour suprême cassation Moi la gën et pourtant ñoom ba ñuy Ousmane Sonko ba ñuy Ousmane Sonko Hein? mais ils n'ont pas les les te ci ay caaxaan sax lañ ko daaneele mais ki seen caaxaan yooyu ñu ngi continuer neen di appliquer une une certaine loi te ñun lii ñu dugg ni mais du c'est un juge qui a rendu une une une décision mais nous, ñu ñu bañ ko appliquer mais dañuy sonal seen bopp parce que nous, li ñu daj ci président Ousmane Sonko yëpp jël la sécurité toute la sécurité de ce pays tout ko président Ousmane toute la justice de ce pays ce ko ci président Ousmane Sonko toute l'administration de ce pays le ko ci président Ousmane Sonko te ba Ousmane Sonko fais mu nekk mu de donc si on touti, xel touti, gëm ils doivent arrêter parce que rien absolument rien luy en tant qu'être humain mënul empêcher président Ousmane Sonko parrainage moom commencé na ba léegi honorable gis nañu ni en tout cas euh, jege na 20 jours. waaw est-ce que nekkuñu quand même bi amputé bu baax. waaw mais ñom loolu lañ bëgg dilatoire lañuy def parce que tay bo xolé xam nañ ni président Ousmane Sonko à lui seul à lui seul wàcc ci terrain bi ay nitam wàcc ci terrain bi di parrainer moy né moy né l'élection est déjà pliée ñom liñu def yépp dañ ko calculer ils ont mis un schéma c'est du dilatoire pour nous retarder c'est ça xam nañ ko ñoo lu gëna xam parce que tey boo xoolee ay avocat de l'État dem ba à la cour de justice de la CEDEAO gàcce la tey ni ñu le Sénégal di def dilatoire foofu di laaj ay renvoi parce que encore maîtriser le fond du dossier yu kenn xamul c'est que dañ dem ba ñakal fayda Sénégal ñakal nañ fayda fi, l'État à l'interne mais ñakal nañ ko fayda à à à mais si nga ñun c'est-à-dire que ñun ñun nous sommes des légalistes te ñi fi nekkon di wax naan il faut respecter les décisions juridiques ak yëpp déggootoo leen ñu wax Macky Sall wax fi en juillet il fera tout pour faire respecter les décisions de la justice boobu xam nga lu taxoon mu di wax Ousmane Sonko moo taxoon mu di wax c'est-à-dire que tey lépp loo xam justice teg na ko ci kaw Ousmane Sonko dinaa ko dinaa ko doxal yàlla nattoo justice wax loo xam ne bokkul ak moom la mu bëggoon ci Ousmane Sonko Yalla ko nattu te beneen nattoo ngi ñëw donc dañuy sonal seen bopp suul ker du ko tere feeñ Ousmane Sonko incha allahu rabbi dina jël ay fiche de parrainage am dina bokk ci élection présidentielle bi gis nga ñun benn jour de parrainage sax benn jour de parrainage c'est des millions de de, de signatures qu'on va collecter loolu yàlla moo ko donc mënuñu ci dañuy sonal seen bopp maintenant nag dëkk bi dafa am yoon dëgg la mais gis nga yoon bu ñu demee ba amatul ci réew anarchie mooy installé wu. et ils seront les principaux responsables de ce qui va se passer dans ce pays ñu ngi fooyee loo xam ne c'est pas la peine nguur yàlla moo koy joxe président Ousmane Sonko c'est un candidat comme tous les autres candidats et puis li mu ci gën a jaaxal mooy loolu c'est-à-dire que cette peur du président Ousmane Sonko dafa dem ba ça ça les a rendus c'est-à-dire que c'est-à-dire que ils vivent une angoisse extraordinaire uniquement parce qu'ils ont peur de lui mais qu'est-ce où est le problème ils sont majoritaires dans ce pays Ils nañu de loolu la hein? gagné dès le premier tour mais kon duñu le président Ousmane Sonko mu bokk bu gagné ñu gagné dès le premier tour pourquoi ils veulent pas comme mu mais c'est parce que xam ni Ousmane Sonko bu ñu l'élection élection 8h, midi sax la 8h, 9 wax mais est yi ne huit heures neuf heures élection yi jeex mënuñu doomu gannaaw yàlla mënuñu fexe ba président Ousmane Sonko du nekk candidat à l' élection présidentielle dem fekk donc dañuy sonal seen bopp nañu jox suñu fiche de parrainage ci jàmm Sénégal jàmm la ñu soxla dëkk baa ngi ne tekk ñëpp a ngi ne tekk di leen déglu mais am na foo xam ne bu fa eggee on l' acceptera pas incha allah. bon président Ayib moom c'est lui le mandataire on sera là demain matin. donc euh, ah, le faut à 10 heures. oui au plus tard à 10 heures on sera là on nous a dit que le président est sorti. On constate qu'il est sorti, mais demain, le président Aïd, c'est lui le mandataire, Inch'Allah, à 10h, nous faire la langue Sénat de Mais le c'est que nous avons

ñoom ñoo daal di fare euh, fana xam ni itam mooy zaanu ko Pastef di si jaajëfal bu baax a baax image yi euh, suñu ay naataangoo yu euh, Jàllale TV alors donc loolu lañ mën a daal di jàpp tey jii. fa xam ne itam mooy zaanu ko Sénat gis ni ki na xam ne mooy Ayib Daffé dem na fa gis na ni na xam ne itam noonu la ko daal di wàññee la ko la ko waral nag di Abdoulaye Sylla di li na xam ne mu ñit nit ba tey moom moo daal di liggéeyul la

alors ñu daal di dem si euh, keneen euh, ki nga xam nekk moo di euh, Falla Fleur Falla Fleur na xam ne ko ginnaaw ba nga daal di tegeel loxo si post yi na xam ni itam doon na ko daal di def à travers page Facebook am moom ki na xam nekk moo di Falla Fleur nag moom jàpp neen lu nu mel moom moo ko daal di def c'est-à-dire appel à l'instruction ak yéen yu nu mel yoon ak wàllug yoonal daanoon na ko benn atu kaso

bu bëgg mu bëggoon génnee boobu dañ nga xam nekk moo di note nag naka noonu donc daal di li nga xam nekk moo di tege loxo moom ki nga xam nekk moo di Fall reconnaître nañ que ni moom moo daal di amal lu nu mel mm, ba waral ñu daal di koy daan benn weeru kasa boo xam ni itam fukki fan la la si daal di tëdd jàppee ni itam ki nga xam moo di Fall nag fukki fan yooyu tëdd na ko pare maanaam di jours yooyu noonu tëdd na ko pare ginnaaw ba nga ko daal di jàppee si benn infraction outre ko ba nga ko jàppee si page Facebook am. naka non nak ki nga Fleur donc dina euh, euh, a été reconnu coupable et condamné à un mois de prison, dont 10 jours fermes. Les 10 jours de détention ont été déjà purgés, donc elle sera libérée ce soir. Elle était poursuivie pour tentative de sorte irrégulière de euh, correspondance à la prison de femmes de Liberté 6. Alors, Moukina Hamnek Modi Fala donc libre. Euh, mu nar a une euh, bonne nouvelle pour les patriotes yi nga xam ni itam boobu ba ngi daal di euh, sympathie envers ki nga xam que modi fall Fleur donc fall Fleur donc il est libre justement ginnaaw boobu daal day Ben benn weer bi nga xam ni mm, daan nañ ko jëm si walu wunu mel la. alors euh, ñu daal di jàll si li nga xam nekk moo di leneen bokk na fa nga xam ni itam mooy zaanuk CEDEAO euh, tey jii nag euh, le juge Jérôme doon na daal day dalal li na xam nekk moo di les avocats Ousmane Sonko ak li nga xam nekk moo di de du Sénégal fa seen daal di taxaw si kaaw ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko nag ginnaaw li nga xam nekk moo di juróomi waxtu nag ñoom itam boobu de audience tey jii am na ko mu daal di yem ak audience bi ginnaaw ba nga di ajee woon. ba tey jii euh, juróom fan novembre IFINA doon nañ ko daal di tenir 29 octobre daal di koy ajani ba tey jii ma nak tay le juge li nga xam nekk moo di Jérôme mu daal di le juge bu CEDEAO ajani na li nga xam nekk moo euh, procès bu nu mel ba le 17 le fa seen di amal li nga xam que moo euh, délibération mu nek délibération bo xamni tam ñep ñëpp ñu koy daal di xaaral ni daal di xool ki nga xam nekk le juge CEDEAO fan le fa seen daal di penché exactement digganteeg Ousmane Sonko wala comme sax digganteeg li nga xam nekk les avocats de l'État du Sénégal en tout cas tay ji mu nekkoon ben confrontation bo xamni tam quoi qu'on puisse dire ay cadre djibna fa diggante li nga xam nekk moo ñaari parti yi avocat yu état du Sénégal ñom nee paré wuñu won peut-être pour fond bi tey doo ñëwoon uniquement pour la forme parce que ay problème de connexion wala comme sax internet wala comme sax walum courant bi beau juge bi daal tontu que ni vous êtes puissant et que vous pouvez régler cette situation afin d'aller de boucler boobu de li nga xam nekk moo a plein itam avocat Ousmane Sonko que daal di jàpp ni itam jot nañu daal di koy leeral waaye Juan Branco tey yëkkati na li nga xam nekk moo di ay kaddu maître Clédor yëkkati na ay kaddu maître Yoro aussi ak ñu mu l'ensemble des avocats d'état l'État du Sénégal aussi yëkkati na li nga xam nekk moo di ay kaddu mu nekkoon confrontation d'idées entre les avocats euh, de l'état du Sénégal et les avocats d'Ousmane Sonko alors.

appliqué et tant d'autres et tant d'autres moom ki n'a xam que modi di Clédor tey mu def ay révélation yu doy waar si kanamu li n'a xam que moo juge bi alors euh, ñu daal di dem euh, xooli ki n'a xam que modi di Clédor ñu daal di xool yéen kàddu la daal di yékki moom sax dem na ba daal di brandir ay preuves yi n'a xam itam day daal démonter la police nationale bi ramené. xam ne itam dafa une partie euh, par rapport ak que li nga n'a ramené que di juin atoup 2023 ak aussi li n'a xam que modi di reprocureur bi n'a xam ne itam moo dagg ay séquence ni lu nu mel Ousmane Sonko moo ko daal di woote Clédor dem sax ba japp ni itam jox li nga l'intégralité des vidéos dal di koy jébbali ki que le juge euh, Jérôme bi nga xamni tam tay modon dal di présider euh, de li nga que audience ma len euh, les avocats d'Ousmane Sonko déposé li nga xam